Se o do dañuy ñëw ci beneen fee boo xamante ni marqué na semaine bi ñu génn muy fee Dieynaba Baldé Brillfly fee la nag yoo xamante ni comme le dossier est pendant devant la justice éthique ak déontologie mayuñu ñu xuus ci fi ñu mën a yem rek maanaam mooy ginnaaw ba ñu jàkkaarle le juge qui dit Bril ak Dieynaba Balde jàkkaarlooñ nag juge bi biñu ñuy juge bi nak mais tribunal flagrant délit la flagrant délit Pourquoi il koy fekkee ñëpp koy seetaan propos yuñ fois fa jëlé rek mom lañ leen di kii di Dieynaba Balde mom néna bi muy def lolu coup de jalousie la ko ndax té Bril faram la won ñom ñaar ñoo dëkkoon dañu dëkkoon à cocobinage. donc euh, mu amone euh, jalousie Madame fiiraange bu doxone ci dit ak Bril mo taxone mu sàcc téléphone Bril ba brille. Ah, complot ci ak rakkam boobu di Ali Balde ak Pape pour ñuy envoyer. envoyé waat ay message kii di Bril pour ko xamal ni ko su joxewul xaalis dinañ ko génneel ay photom yoo xamante ni moom ak copinam boobu ñoom ñoo ko seqoon loolu ay waxu Dieynaba Baldé la kanta Bril aussi biñ ko waxee nee na moom aussi jalousie moo taxoon mu def loolu ndaxte ñu bëri dañ ko newoon gel bi ngay génneel di Dieynaba Baldé dafay génn ak beneen ministre elle est infidèle donc coup de colère boobu moo ko ci poussé woon mais ginnaaw bi ñu demee foofu kii di Bril nag avocat am wax na nee na balaa ñuy jàkkaarloog juge bi mardi bi ñu génn muy talaata moom ajjuma ñëwoon na ci biroom ne man mi kat dama décidé pour baal kii di Dieynaba Balde avocat bi nag lenn la ko tontu ne que ah soo ko defee dee nga def geste bu noble geste boo xamante ni ñëpp dinañ la ci naw mais nag da ngay bàyyi ba dem ci juge bi nga wax ko ginnaaw bi ñu ñëw ci juge bi kii di Bril nee na moom bal na Dieynaba Balde mais aussi avocat Dieynaba Balde aussi wax na muy maître euh, Clédor Cirelli l' avocat de Dieynaba Balde nee na dossier bi dara nekku ci ñaar ñu nobonte rek la woon donc loolu la kii wax mais. tay sénégalais yi dafa am benen gis-gis bo xamanteni wax nañ ko ci muy lan te jeynaba Baldé ay mbokam yi nekk ci Kolda critiquer nañ ko bu baax a baax ni ko critiquer parce que nenañu xale bu ndaw la woon bu mu tollo ci nekkul woon majeur gisoon nañu mo am fi benn scandale ak kii di Diop isek bi mu waxee loolu nag dañuy déglu d'abord mbokam bi nekk Kolda lan la wax. xam ne dama mer Dieyna ba ànd Dieyna yo, yow Dieyna yo lay waxal Dieyna lan mooy sa problème yow Dieyna Dieyna an hersini yimbe yow lo nga nit ñi yow wa Kolda yi yow nga nek xalé bu no nek parental yow juddoogoo yow chaque jour ay problème nga ñuy indil ñun ñun duñu sax dem ba rus yow lan mooy sa problème Dieyna an ko doon problème maada lan mooy sa problème parce que damay wax olof di wax peul pour ñu déglu euh, olof peul ñu xamné ne xam nga ñu xam ñu xam limay wax yow xalé bu ndaw yow suñu kanam nga juddoo Yo, suñu kanam yo nga juddo xam sa yaay xam sa papa xam sa mak mu nen nga xam ne mu ngi sey Dakar gi deful ken waxul kenn kenn xamuko yo nga juddo barki dembu nga def fi bu ne weng pare guñu ci lolu nga duggaat ci lenen yo c'est quoi ton problème ana hesini wa kolda hesini sukaɓe be kolda a goron probléme maɗa jeyna an fo fof fo dara xale bu ton ni yow la moy sa problème c'est quoi ton problème so bis dafa jar li xale bu naw nga nek ak sa frère bi lembe dekk bi yeen pour may yeen pour pour yeen mo tay ku gis sama sama vidéo bi xamne dama mer jeena ba aan jeena yow jeena sama mooy sa problème kon ñoo ko déggandoo gis ngeen ni que kii di connaissance su Dieynaba Balde dëkk ak moom foofu ca Kolda lii la wax ginnaaw bi ñaari avocat yi génnee maanaam ñàkkal fayda dossier bi ak nu mu amee mais am na ñoo xamante ni gisewuñu

étalé ko ci presse bi fu nekk mu ciy wax di def ay tiktokam ak ay sa euh, lu ko neex ay snabam di ko génnee ci réseaux sociaux yi sénégalais yépp jàppee woon ko victime mais bii ñëwaat dal ko lu tax mu métti nit ñi tey parce que nee nañu xale bu ndaw du am doom ni ko maam góor ko waxee en tant que jigéen yow nga nekk ak góor boo xamante ni takku la ci farataak sunna nga dëkk ak moom bu njëkk sax xale yi suñu amee far dañuy sàcc dem seeti seen far ñibbi si mais xale bu ndaw tey toll si Dieyna Baldé ak jamono ji fu mu toll vingt et siècle suñuy doom suñuy rakk nekk suñu biir kër di ko ko est-ce que tay du une mauvaise influence ndax tay suñuy doom motax tay tey ñu toog di défendre taxaw di nan waru leen ko wax li wala wala genn ci li buñu xol ci Dieynaba balde limu def nit ñi dañ ci wax dedet parce que dafa def lo xamanteni tay tey balde su nekkul woon ka su doonoon ben sénégalaise lambda bo xamanteni ni kenn xamu ko kenn mësu gis kenn duko tuddu tudd rax ci dolli parce que dafa jaar ci compétition boobu di seen petit gàlle gis naa ñu bari ñi nan Dieynaba balde musul jël seen petit gàlle ñun mësuñu taxaw wax fi Dieynaba balde jël na seen petit gàlle dañu ne compétition bi seen petit gàlle Baldé moom moo remporté woon Kolda Kolda boobu mu remporté moo ko indi woon Dakar ba mu bokk ci finaliste yi mais mosu ko remporté donc loolu la waa Kolda bi wax ñaawlu nañ ko ba Balde rus na leen ndaxte xale bu ndaw yàq na deru jigéen ba nga xamante ni kenn xamul foo xamante ni fële nit di féete tey ñu bari nag ñu ngi koy encouragé mais su doon seen doom est ce que dinañ ko encouragé est ce que il n' est pas temps que tey lii mooy indi dérive yi tey ci réew mi parce que suñu encouragé Dieynaba Baldé suba beneen xale dina ko def ne ah su ma ko defee dama ciy génnaat ndànk-ndànk te dañu toll si benn Sénégal boo xamante ni xammeetuñu jikko yi xameetuñu kenn donc du question dañ koy critiquer ndaxte xale bu ndaw dafa war def yëfu xale xale su demee ba nga xamante yaa ngi dëkk ak safar di yor ay iPhone di yónnee say waajur xaalis te jàngoo xëyoo gontoo amoo salaire xale boo xamante ni yaa ngi soog a dugg ci sa 18 ans ñu ne da ngay génn ak ministre ministre boobu tamit dañ koy blâmer ndaxte tey su doon doomam la la dégg mi ngi am 18 ans di génn ak keneen tey du génn ak moom ministre boobu dafa waroon jàppee ni que Dieynaba Baldé comme doomam même su dee dafa ñëw am di fausul mu ko tegaat ci yoon ñu bëri critique bi ñu jógee ci aussi gis nañu suñu di Vito Sénégal le futur transcendant dans le quelqu'un que je respecte que je salue au passage dalaloon Aïssatou Diop Fall ñu Aïssatou Diop Fall la wax ci fii laa gis ay jigéen wane seen awra mhm. doxee fa am bës mhm. doxee fa ay kilifa di ut ay góor ñëw di leen ut si mhm. ñu doxee fa tekki dawal ay oto dawal ay affaire lii nii day jeynaa lu kii nii dafa sori c'est un processus un très long processus ñoom gis naa loolu yëpp gis naa ko et man <laughs> dama loolu dama ne Sénégal vraiment c'est un pays qui aujourd'hui marche sur la tête parce que jay naa ci ñooñ la gis roy dàq la parce que ñun ñu ngi fi vraiment fàtte xaju fi tudduma benn tur mhm. rappelé wu ma dara waaye ku demee internet archive yaa nga fa mhm. Sénégal nga gis ay mhm. jigéen ñoo xam ne dañoo wane seen awra ci anam bu ñaaw di jëflante yu ñaaw yoo xam ne suñuy maam maamaat yi xaj xalaatuñu ko suñuy yaay yi xalaatu ko ñëpp teg seen bët ñëpp yuuxu naan kii est-ce que dina génn ci télé. wala hmm. génn ci ci rajo di wax. bu doon yeneen réew. Hmm. réew tubaab yi réew nasaraan yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne dañoo arrivé. Hmm. ñu yu mel noonu scandale yooyu comme fa dal dootoo génn ti da ngay exilé wu. mais déedéet fii da nga ñu déroulé la tapis rouge. tale yi dem da jël. micro nga taxaw ba picc piccal ba. sama saar gi dégg nga après euh, nga def ay affaire mhm. ñu lay invité ngay mhm. osé sax di way di def ay affaire di xasaate di xasaate ba après <laughs> léegi nag ay ay ay ay ay góor yu vicieux parce que mhm. xam nga euh, li waral loolu mooy góor ñu vicieux la. parce que dafa am ñu vicieux. ñoo xam ne ñu mën a am seen jabar. dañ bu ñu gisee benn jigéen boo xam ne sañ na toog wane awraam ci télé. ci anam bu ñaaw dañ naan kon kii ragalul dara ñu làq jaar ci suuf di defanteeg moom. may ko ay oto. Hmm. muy voyager dafa ay affaire euh, léegi xale boobu nag nekk ci Snapchat yi. Hmm. di wane boppam di wane naa léegi nag ku ku amul yar. Hmm. amoo éducation say parents tel la abandonné parce que yéen man abandon démission les parents ont démissionné maintenant. parents yi démissionné yow xale boobu nga toog xool ñooñu. nga ne ah tiens pourtant kii ak ni mu def démb. Sénégal nga ni ñu naan mamu damat weer ñu ne ah kii li mu fi def démb li mu fi def naa nii la mujjee mm. xool ko léegi mi ngi taxaw yow ñu exhibé seen ay or <laughs> exhibé seen ay oto exhibé seen nanga nga ni kii kon xoola mm-hmm. jàngoo ko mm-hmm. ñun ñi yàgg ci ban école yi mm-hmm. daj fa lu ne sonn rampe galéré nekk micro bi nga gàdd dama ko gàdd ay at sonn trente mille francs par mois sax euh, buñ ko amee bëri na kon ñoo ko déggandoo kàddu yooyu la Aïssatou Diop Fall yëkkati ci suy micro suñu natango Vito gay nekk foofu ca Sénégal set donc mu wax ci kaawu Dieyna Balde mais mais nee na Dieyna Balde roy dàq la def suñu nee roy dàq la def maanaam dafa am ay magam yoo xamante ni dañ ko jiitu woon def Sénégal bañ ko defee fii Sénégal jël seen euh, awra génnee ko ci bitti ñu après ñu leen di invité ci plateau yi ñu taxaw ci seen bi te nee bu njëkk su dee jom rek ak ful la woon su la dalee da ngay exilé wu génn foo tourné yaa ngi snap yaa ngi statut gars yi def la ngandim star est Balde gisul ci lolu motax tax xaaral ma def li ndaxte su ma ko defee dara du ci fekk motax tax sama commencement wax mané buñu bu ni dañ koy critiquer mais il faut le corriger soko corriger dina tax suba xalé bu ko naroon def dina ragal mais suñ ko encouragé jàppale ni ko ñun ñep on est en sursis parce que am nañu ay doom am nañu ay rakku yu ndaw te xam ngeen jamonoy technologie lañ nekk xalé yi jamono ji kenn mënatu leen contrôler comme luñu wax da ngay nekk njabotu kanaareer bay leen ñi jitu nga top sen ginaaw di leen xool donc war nañu xolaat bu baax doxalin bi parce que ñun ñu fi di critiquer ken xalé bu ndaw mo jël bopam dem dëkk ak faram am ci tool toll 18 ans ba pare sàcc téléphone faram jox ko frère am boo pare ñoom ñi santage kooku far bi ci bopam moom moo ko yóbbu porté ko plainte donc je crois que ñoom ñoo jël seen vie étalé ko ci mbedd donc Bril tey en tant que un chanteur un porteur de voix aussi moom mi war a yeete yeddaate tey waroon na xool ni que Dieyna mi ra mënoon na doon rakam wala doon euh, doomam wala doon koo xamante ni jóge na ko mu teg ko ci yoon ndaxte su doon rakam la fekkoon aussi beneen artiste di dëkk ak moom def lii je crois que du am lu ko neex donc ay Déthié Fall bi mu génnee sortie bi je crois que sénégalais yu bëri ànd nañ ci ak moom ndaxte li mu wax rek mooy dëgg Sénégal fii ngay gis ñoo xamante ni dañuy def njombe yu rëy def loo xamante ni sudul noonu nga doon benn hypocrite ànd ak ñoom benn Tange su jógee wax ci ñu ne Tange dafa bëgg a dugg ci vie privée jàmbur Tange dafa bëgg a lijjit mooy lim leen wax rek dañu nekk fii pour alerter suñu bàyyee benn bu dem ñaar dem yuuxu dina jëpp fuñ ko foogeewul ndaxte chaque fois ñun ñooy yuuxu chaque fois on voit des scandales tey dem na ba nga xamante Sénégal doon na benn jamono boo xamante ni kenn xàmmeetu ko koo wax mun la ñemeetu ma maa ngi toog jàpp sama njàmbur kenn nangootul am xarit kenn nangootul dem ko indi genre pour man parce que tey dossier bi devant la justice donc en tout cas comme Bril na juge bi na renvoyé procès bi ñi ngi xaar verdict bi semaine prochaine incha mais jàppaleen na ñaari avocat yi nee dossier bi dafa vide histoire lu nobante la d' accord histoire lu nobante mais oustaz yi am na lu ci wax Iran daw am na lu ci wax oustaz Mamatar Sarr am na lu ci wax yàlla suñu bopp ñun suñu diine daganul ñuy vivre ñoo xamante ni sëyuñu ngeen di bokk benn appartement xëy na am na ci réewu nasaraan yi mais amul fii tey suñu gisee xale bu ndaw di ko def est ce que du insister yeneen xale yi ñu koy def donc c' est quelque chose boo xamante ni war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu doonoon